doomu Moussa Dianky gi kan moy Cheikh Abdoul Khadir Jilani am mbooloo mu bari mo xamni dañuy ñëw di jël ci xam-xam Cheikh Abdoul Khadir Jilani ci am xam-xam ak mën ko joxe ci wétal borom bi subhanahu wa taala ci top sunna yonente bi alayhi salaatu wasalaam roy ko ci bëbu anam Cheikh Abdoul Khadir Jilani daan toog ci jotay mbooloo mu bari ñëw di tatam xam-xam ñi ñëw di gëstu ngir yëkkatiku ci yegg seen borom subhanahu wa taala diko laaj ngir bëgg xam ñi di def li arab di tuddé iftira di laaj ngir diingat ak bëgg bëgg koo faqastal waaye Cheikh Abdul Qadir Jeylaani ab kilifa day nangu masala ku mës a ñëw laaj ko dana la tontu bil ilmi wal adabi ci xam-xam ci teggin ak yar waaye ku mu tontu nga jox loxo ni ko kii mooy waaja Cheikh Abdul Qadir Jeylaani laaj yu bëri dox digganteem ak mbooloo yooyu nga xam ne doon nan ñëw di ko laaj Cheikh Abdul Jeylaani ci ban xaal la ne gis nga mbokk moomu li ñu koy laaj ci Abul Mansour al di góor yàlla boobu nga xam ni waxam ju ji mu waxoon tax ñoon charia daa di teqali boppam ak baatam ni dafa génn ci diine mu di ko laaj Cheikh Abdul Xaadir Jeylaani Hallaj moom lan mooy taxawaayam Cheikh Abdul Xaadir ne ko na ko yàlla yërëm dafa fekkantewul ak man jamono waaye bu nu fekkante woon jamono dinaa ko layal moom Hallaj ci waxam jooju mu wax Cheikh Abdul Xaadir Jeylaani layal na ñi ko jiitu layal na ñi mu dundandool layal na war a ñëw gannaaw mi noonu kii di mbok mo xamni da nga dan gis ci jàkke ji ñuy julleendoo ak dir Cheikh Xaadir jilani melni ci bëtam lu ñëwatul mu diko laaj ndax da nga bàyyi sa julli mu ne ko sunu borom subhanahu wa taala tagatal nama ma suuf ak asaman ba espace amatul ci man mu tax damay julli jee ca màkkatal mukarram la balxiis gisoon kërok bi nga xamé ni yónnanti yàlla suleyman indil nako chez bobule muy lan tayul ard yàlla diko ko tënkal suuf si muy dem màkkatal mukarram di julli tabarakallah lol la fofu la cheikh bu xaadir jilani tolon bay julle ja màkka dafa tabarakallahu kooku itam gën a xam cheikham cheikh la ci bir cheikh عليكم بتقوى الله فإنها تمنع الجوارح من المعاصي يا باز الله الأشهب يا سلطان العارفين ماذا تقول في الأب المغيث الحسين ابن منصور الحلاج حينما قال أنا الحق لا أقول فيه إلا أن الحلاج عثر ولم يكن في زمانه من يأخذ يا عبد القادر هل يوجد الطرق الصوفية أصلا في الإسلام وطريقتكم مبنية على الافتراء والكذب منك يو شيخ عبد القادر الجيلاني طريقة بيجن يور ولا طريقة يجن يور لونو صصلة ده دي بايو كوفي لونو صصلة ده جمي ولن فن شيخ عبد القادر الجيلاني تي ياتو الدن تروي ينتبع عليه الصلاة والسلام مام نيكو يو ميغا خمد يا ميلاج بلا لاج يجسي التايمة خمال طريقة بينو أم مبنية دنكو تبخ على الكتاب والسنة تي القرآن لبايكو أكي سنة ينتبع عليه الصلاة dikkeewunu ci gént dikkeewun ci nelaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ma ko jox ma bàyyi ko xeet bi mu jox ko ci firnde yu wérte wóor mu jox ko loxo tuub fa tabarakallahu man bokk na ci say taalibi bu njëkk Cheikh Abdul Qadir Jilani يا عبد القادر أنت تدعي الولاية ولم نراك تصلي في هذه الأيام لما تركت الصلاة؟ حدثنا شيخنا يوم من الأيام في هذه الأبيات فقالوا لي يا هذا تركت صلاتك ولم يعلموا أني أصلي بمكة ولا جامع إلا ولي فيه منبر ولا منبر إلا ولي فيه خطبتي السيد عبد القادر الجيلان الباز الله الأشهر لا يقضي ليلة دون استقبال الضيوف يساعد الضعفاء ويطعم الفقراء ولا يرد طلبا لأحد بل يقدم ثوبه للفقراء إذا ما كان لديه الثوب ويشعر الذين يجلسون إلى الجانب بتواضعه ولطفه وكرمه ويسامح الذي يسيئون إليه gis mbooloo mi nanguñu woon sax mujj gi gis ngeen mbokk yi mbooloo yooyu yemuñu woon rek ci nangu Cheikh Abdul Qadir Jeylaani waaye dem nañu ba di ko seedeel ay jikkooki qualité yu kéemaane ci kap ci yaatu dënn ci mën a teral nit ngir bu mosaana toog bis te teralul gan dafay mel ni sax ay cëram day lomp ci leyal miskin waaye daawul gant kenn ku ko laaj donte benn yére sax la mosoon a yor bu mosoon a ñëw laaj ko Cheikh Abdul Qadir Jeylaani ci dab bu yéema bi fay yëkkati loolu jox la ci yërëm ay miski teral ay néew ju doole Cheikh Abdul Qadir Jeylaani ci ñeewante doomu aadama ak xol bu yaatu loolu la mbooloo mu mujj di ko seedeel sidina Cheikh Abdul Qadir Jeylaani radiyallahu taala an baatullahi al ashaq qaddasallahu sirruhu